mooy 4 avril 2021. 2021 bi ñu leen waxee waxu force occulte dañ doon ree parce que ils savent de manière catégorique que loolu amul nga baal ma c'est des affabulations c'est force occulte c'est dans l'imaginaire de Macky Sall nee naa la Macky Sall déroule la stratégie d'apeurer dafay tiital askan wi. ah tiit nañ mooy lii xew tey Maymuna L200 yi ñu jël yàpp ko ay nervi xam nga fi mu jógee li may ñëw fii léegi romb naa leen force occulte yoo ràññee force occulte yu ànd ak say ay police ak say gendarme force occulte yuy jël ay fetal di tiire ci ay nit may mun a l'heure et grave très et grave et bu ñu demee nekk ci réew lu day ni Sénégal ba ay nit di jël ay civils di leen armer pour ñuy tirer sur la population il de quoi avoir peur et je dis man bëgg naa ñu wax ma le marché des quarante cinq milliards d'armement yi ñu jëndoon armes yooyu il faut ñu wax ñu ana arme yi parce que armes yi ñu gis muy circuler c'est des M16 du du du armu caaxaan nañu xam nag ne dana am incha allah ay enquête yoo xam ne réew mi bu tegoo ci suñu loxo dana nu ko ubbi ci mbiru nervi yooyu parce que ñiy recruter nervi yi mooy ñi nga xam ne dañu transcender méritocratie mooy ñi nga xam ne dañu dal ci mbir mi mais am na ay fonctionnaires émérites yoo nekk xam ne ñu ngi fii ci gouvernement bi ñooñ kenn du leen dégg mu